samuudaak borom ña yaag ña toppa ca ñoom ñi ñëpp yaa leen ca yoon tax ñu soobu jahim duniyaa yenente yee ñi la xam moo tax ñu dëddu la déeg looloo taxoon Moustapha dar ki tey la mu bom ana gaa yu baax yi daan doona lislaam ci duniyaa ku mel ni limaamu ak Seex Bamba Seex naa te mooy Seex Saadi boobu Alhaaji ka jàppa mbiram ci say xoomar kamaana El Omar ma daan xeex ngir gal islam ka sàkk Alaaji Abdoulaye Ñas na naa Sëriñ Canabaak Sëriñ Bu ñii ñëpp ñu baax lañu woon te tey ku ci nekk dem na waaye ana gaaya réeroon yàlla jëy leen ci dunyaa ñuy dañal seeni fas tey xeex di bàkkoo melaw buur ba ñii di xeex ngir alal ak nguur du toj réew yi ngi pal te na bur yàllaay te leen jey ca sa mi tax nuy xeex di dongoonte moom du dal du sa si bi dem ngir dee الحمد لله رب العالمين أه، الحمد لله على كل حال نيغي سانت يالا بو باخ waxtaan wi ni mu tëdd tey xam naa ne waxtu rekk moo ñu tënk waaye note nañ ci lu bari xanaa ñu fàttali ci rekk ci loo xam ne sëñ bi xaj na jaar na ci muy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ku nekk yëg na ne yonni gi ko yàlla yonni dafa ñëw ngir jàmm waaye dafa ñëw itam ngir yërmande loolu bokk na ci yonent bi sallallahu alayhi wa li tax yàlla yonni ko mu nekk rahmatan linnaas bon dégg nañ ci itam ci ay waxam mu tudde jàmm ci jigéen ñi waaye sax borom kër yi te defe naa bu ñu bëggee jàmm am surtout ci biir néeg yi li ñu war a moytu bokk na ci portable portable moom lañu ñu ak waxtaan ñaar ñu bokk benn néeg di ñaari way dencante ku nekk yor portable wan sa morom gennaaw loolu du indi jàmm ci kër waaye du indi jàmm ci néeg loolu nañ ci bàyyi xel itam bu la yàlla booleeg jigéen ju joŋe jigéen ju baax bul di bari kers ba mu ëpp léeg-léeg nga boo ñu boole la ak jigéen joo xam ne la yàlla la yonent bi waxoon ne sarax bi gën ci sarax yi bi gën a duum ci sarax yi mooy tibb bu soxna jël saxal ko boroom këram neena na boobu sarax benn ëpp ko yool waaye ñun góor ñi moom dañu xala kii trop léeg-léeg dañuy tibbe saxla sax nga naan non waaye nii garaawul naa waaye jëlal waay jëlal ba mar loxo ya dara nekku si yàlla moo la ko sant yonent bi moo la ko sant bon loolu waruñu si am benn kers bi si des dugg na ba waxtaan li xew ci jamono ji ñu toll muy wàllu histoire yu fi xew mu ngi tudd ak fu mel ni Kayaar dafa gën a siiwe foofu mais fii si Yoff daanaka fi la tàmbalee fi lañ jëkk a taale yëfi jàmbur fi lañu jëkk a dàqe ay nit na leen doo leen fi teer loolu du indi jàmm gis nga géej ak yàlla gi ni suuf si yaatoo géeju suñu borom noon la yaatoo kenn yorul wërsëgu kenn yàlla mooy yor wërsëg yi di ko séddale ku sa wërsëg tolloo si yàlla jox la ko mu jox la ko kon yooyu nañ siy bàyyi xel jàmm nañ koy saxal ma wax leen si benn histoire rek si benn mbokk ak soxnaam dañu dëkkoon si benn immeuble waaye fa ñuy buñ laa dugg si immeuble am benn garab gu nekk foofu ndekete ña fay toog ñëpp ay agresseur lañ waaye ñoom ñaar jëkkër ji ak soxnaam ak ak soxnaam fu ñu rombe ñooñu baatu asalaamualeykum lañ leen di nuyoo maa yéen a ngi ci jàmm ñu fay ñoom ñu dem ba bés rekk agresseur yooya seen xel dab si toj kër yi ba ñu duggee sa immeuble ba di jël alali jàmbur yi di jël ba yem sa buntu waaja benn si ñoom dem bay xëcc bunt ba mu ne ko eh kii kat mooy ku mën a nuyoo ki bu kenn laal buntu këram bon loolu lan moo ko waral jàmm e jàmm dañ ko war a yaatal gis nga xodar ba mu àndeek yonent yàlla Muusa dugg na ci gaal di toj gaal ga yor semmiñ di ko toj te waxoon na Muusa bul ma laaj dara si li may def Muusa mënul àntal loolu dugg si gaal gaal gay dem ñuy jël semmiñ di xar gaal gi mu ne ko waaw da ngay toj gaal gi pour ñu lab xanaa mu ne ko waxoon naa la bu may def dara bu ma laaj ñu wàcc gaal ga mu romb benn xale rek jël paaka dagg baat ba Moussa ne ko waaw yow ki ngay rey deful dara lu tax nga di ko rey mu ne ko waxoon naa la bul ma laaj ñu dem ba si benn dëkk fekk miir bay daanu mu jubbanti miir ba te fekk ñaanoon nañ ñam ñu bañ Moussa ne ah, xanaa ñii tey boo leen ñaanee dinañ la may mu ne ko ko jàmm parce que bu demoon danañ ko jël mu ne ko xale bi nag mu ne ko xale bi ay waajuram dañoo gëm yàlla di def lu baax waaye yàlla xamal ne ma ne xale bii bu màggee dana beewloo ay waajuram danañ tax ñoom ñëpp ñu ànd dugg safara looloo tax ma rey ko su ko defee ñu mucc ñoom ñëpp ndax loolu du jàmm loolu jàmm la miir bi nag benn kanz moo fa newoon benn alal ju bari ay xale moom ka seen papa dencoon ko fa bind kayit ne bu demee ba màgg bu ñu xoolee kayit ya danañ xam fi seen alal nekk te bu ma bàyyi woon miir bi daanu waa dëkk ba danañu gasaat miir ba pour tabaxaat ko te danañu gis alal ja te dañ koy jël looloo taxoon ma jubbanti miir ba loolu itam jàmm rekk la indi si ñaari xale yooya bon nañuy fexe di sax si jàmm nañuy wax jàmm fu ñu toll sëriñ bi dafa mel ni gàmm Tiwaawunu daaw lan mooy woon tem bi wa qulu linnaasi xusna nañuy jël wax ju rafet képp ku ñu xam ku ñu xamul bu ñu bëggee wax si moom nañu rafetal suñuy kàddu si moom parce que jël kàddu gu ñaaw teg ko si doomu aadama te xamuloo doomu aadama bi xamuloo lan lay def xamuloo lan la ko yàlla fonke waaye nga ñëw rek teg si moom lu bon xamal na loolu ëllëg dana la sànq li sëriñ bi doon wax si màndikat boobu benn màndikat dafay toog si buntu jàkk ji benn nit ku baax di ko fa romb fajar gu ne mu ngi koy gis si buntu jàkk ji mais waaye góor gi daf naan xoolal nit ku baax kii xoolal nit ku baax kii rek loolu rek lay wax romb ko mu di ko def ay fan ba bés mu ñëw fekkul waajam moom màndikat ba toog sa buntu jàkk ja fekku ko fa gor ga dugg tok biir toog première sàppe julli ñaari rakam toog benn waay jox ko loxo nuyoon teex moom ne ko ndox xam nga ma mu ne ko déedéet xaw la de mu ne ko maay màndikat bii daan toog si buntu jàkk ji yàlla xamal ne ma ni sa wax ju baax ji nga doon wax si man si la ma yàlla soppee tey ba nit ku baax bay fréquenté biir jàkk ji waaye xamal ne ma yow garaat boo amoon yàlla yokk na kon yàlla ñu yàlla saxal ci jàmm yàlla ñu yàlla defal jàmm ñu ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp imam bi itam ñu ngi koy ñaanal wassalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh asalaamualeykum wa rahmatullah mbooloo mi ñu ngi leen di ziar yéen ñëpp eh, di rafetlu waxtaanu oustaz macha allah matale na eh, ñu amoon nag benn laaj bu ñu doon laaj eh, mu nekk alxasad maanaam maamana al alaqa bayna al alxasad وال والسلام الحسد والسلام بيجي دس موي العلاقة la relation entre الظن la mauvaise pensée ak wasalaam ñaar yoy dal la doon laaj ngeen jéggel ma nak waaw ma ngi jéggalu bu wér assalamu alaykum alaykum wa rahmatullah assalam wa rahmatullah

ndax amaana ba liñ bëggoon wax waxtu wi moñu dab ñu jël yëpp rek euh, fexé ba yamalé ko fofu mais dafa laaj ñaari laaj yo xamé yu am solo la benn bi moy jikko ju doy war jikko jo xamé mom euh, rek doyon na waxtaan te mu lëmbe ndek suñu jamono moy muy hasad hasad moy kanyan e hasad bobu relation bi nga xamee moom la am ak salaam et bu yaatoo yaatoo yaatu la parce que xanaa duma ko sax de relation mais dafa bokk ci définition yi nga xamee boo koy joxe tey man nga wax ne boo ne salaam rek boo ne xasad rek yobbaale na bu doon quatre-vingt-dix pour cent yi nga xamee moom la ñu wax ci lu safaan parce que xasad dafa nekk jikko boo xamee ne ah jikko bu ñu yonante bi artu la wax ñu ne kikoy def ndeke mu ngi koy def mais xamul xamul li nek li muy dugal ci bopam ndax hasad mom kuko duggal dugal sa bop rek moy yaangi lak sa bop te yeguloko ta moy lan moy mooy al hasudu la yasudu ki iñaan du jiite mukk kaññaan de xet la ci weddi yàlla xet la ci ñak nangu ndogolal yàlla nit ki li la ko yalla jox sa xol am lu mu ci yëg yonent bi sallallahu alayhi wa bokk na ci saar yi nga xamee saaru muslaay la yàlla wàccee leen ñu nekk ñaar ñu leen di tudde al muawidatayni ñaari saar yi ñuy musloo daf ci boole min charri xaasidin ida xasad yàlla nag ma musal ci ayu ki nga xamee daf lay kaññaane jamono bi mu lay ñaane mu nekk réalité boo xamee yonante yi sax muccuñu ci sallallahu alayhi wa sallam yont yàlla yaquba taxoon ba domam nekkee fële nga xamee ne mooy Égypte di yont yàlla Yusuf e bokon na ci la daan yebe doomam yi bu ñu daan dem daf daan wax naan laa tadxulu min baabin waxidin wadxulu min abwaabin mutafarriqa bu ngeen di dem noonu di jub dëkk ba rek tas leen xam nga am na loo xamee kon boo koy xool fii sax du aada mag ñi jekki saa ne bu leen di tukki nekk benn famille bu leen di demandoo parce que demandoo boobu du firine ne oto bi par force dafay accidenté mais cet dafa doy waar te cet boo xamee ndëg xol bi mu jógee dafa kaññaan añaan mooy li nga xamee dafay détruire ki nga koy defal sëriñ lu mu foor foor foor amul gàllaaju faj kañaan yow lenn rek ngay xam mu wóor la ne tey kële may séen xolam neexul ci man bu ma solee lu rafet daf koy naqari boo xamoon li nekk ci kañaan na la jaral nga jël beneen yoon sax parce que li mu lay def daf lay dal directement kon lu doy waar la salaam ndëg moom boo ko xasee ba wax rek salaam mooy yaa ngi ci mucc mooy salaam mucc kon relation bi man foofu ni ma fay mën a tontoo damay mën a wax kat ne yow danga ñu yokkal leneen ci biir waxtaan wi mooy nga bàyyiloo xel nit ñi fi toog lan mooy gravité bi nga xamee moo nekk ci kaññaan ak nu ko nit war a mën a moytoo te yàlla boole bokk na ci li nga xamee nee ne mën naa leen mën naa leen permettre ngeen def lu bari ma jéggal leen ko ba mu des nag ngeen may bokkaale te nag kaññaan dafa nit mënu ko justifier parce que yàlla ngay yàlla ngay taxaw daal nanguwoo li mu dogal ci doomu aadama bi nango limu dogal ci dom adama bi sayna Ali mas na ko wax ne fa kulli imrin ma kana yuhsinuhu dom adama bu nek rek limu refetal ci jëfam la am waye daf ci teg wal jahiluna li ahli al ilm a'da'u ki jàngul d'habitude ki janga da fay don nonam ta defuko dara njàng bi mu jàng rek moko déranger parce que bu fi toogee mën na am dana wax lu mu waxut waa man bu ma ci naree fekk te maa jàngi ni moom mu ñëw ci beneen point muy zann zann ndëg suu zann la ñuy wax inna zanna laa yugni min alxaqi shay'a lii gën a wóoradi mooy njort doo ko bàyyi yonent bi dem na sallallahu alayhi wa sallam ba wax benn xadis boo xamee dafa ne dama yaribuka ila ma la yaribuk boo demoon bay génne sa néeg ngay dute ne ah bu ma tëjul néeg bi de danañ ci jël dara nee ne li sa xel dalul demal nga tëj néeg bi boo ko defee rek demal nga def bële nga xamee njort bi am na ci léegi lan ngay njort nag si sa moroom njort moo gën a bon jikko bu ñaaw la lu rafetul la lu jégué wax lu du dëgg la parce que yow amo certitude ci li ngay xelat husnu zann mo am njort bu rafet yàlla nee sal yàlla nee borom bi tabarak wa taala ana inda zanni abdi bi man maa ngi ci njort bu rafet bi sama jam am ci man bu rafet la wax de boko amé rek defal na la ko bu ñaaw tamit kenn mënu ko justifier li ma ciy wax rek mooy question ñaar yoo posé la mais daf ñu gën a yóbbu ci waxtaan wi rek pour ñu gën a waxtaanee jikko yu ñaaw yi jikko yi nga xamee jullit waru ko jikkoo nga indi ci ñaar boo xamee benn bi mooy kañaan beneen bi daanaka doo xam sax noo koy tudde mooy njorto lu ñaaw sa moroomu jullit daal na nga am njorto bu rafet ci moom walla nga màndu ñaar yooyu ñoom ñoo fi am mais ñun nag leet na lu nekk rek danañ ko njorta li muy wax nii nag ni mu dalee jigéen ñi ñu jox leen sànq privilège noonu la baree seen géew yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak lii yàlla di teral jigéen yépp nag ba ko yàlla rañaanee ba mu ñëw dafa ne li ma gën a jaaxal ci seen mbir mooy ñoo ëpp safara lu ko waral mooy futilité yi jëw ñoo koy gën a def njort boo xamee jaral na leen discussion 24 heures boo ci wax rek bàkkaar lañ lay bindal amoo ci lu la leer kon bu ko wax bul ci dugg sëñ Pape daal def naa ne loolu lañ ci mën a aventurer ci question bi nga xamee moom nga posé mbokk yi oustaz Baye Mor oustaz Abdou Salam sëñ Moussa ku ci am dara rek man nga mais loolu lañ ci jàpp daal ne moom lañ ci mën a faram fàcce insha allah benn góor dañ na ko iñaan baaxul mu ne ci kan ci kan la baaxul ki kay def waaye kañ koy defal yow loo liggéey si kontam nga koy viré loo mën a jaamu yàlla yow ma añaan yaa ngi koy konti yaa ngi koy sànni ci kontu ka ngay añaane loolu ñu bàyyi sa macha allah imaam lii moo tax mbir mi ñu war ko di ko tàmbali midi xam nga ne doy ñu de yow say wax danga ko baacle da nga def avec rapidité waaye nag li ñuy wax ne bari le barke le moo ko gën lii fii am lii yëpp barke la yàlla nañ ko bokk ñun ñëpp ba séddee sa gaa yi nga xamante ne ñoom ñooy gaa yi jiitu te lim leen jàcce leen kaamil jigéen ñi jaaraa gin jërë jëf seeni mbir la waaye jaaraa mbir moo fekk rek bu ci jigéen duggul tey bu ngeen fi nekkul woon tey na <laughs> doy waar de jërë ngeen jëf yal yàlla fay leen yàlla na ngeen fi teewaat yi ñëpp na ngeen di déwén ci waxtu wi yàlla bu kenn manqué yàlla bu kenn sot yàlla bu kenn sibul papalaay kaay imaam Malick mii nag imaam Malick jërëjëf masoo gi dañ koy fal saltige sa Ndakaaru gouverneur toog ñëpp toog ñu jékki-jékki rek Mansour Mbaye ni bërit jóg jël micro central bi son papa nee na Bassirou Diagne ne ko Mansour mbay mu ne la bay mu ne ko joxal kii micro bi Mansour mbay geesu ah c'est que Badji mu ne ko fii Ndakaaru la son papa ne ma jël micro bi ne leen lam fu neex waaye mu takk ka de waaye si loxo la daax junj la jërë ngeen def diw yeeg si nag diw la jox kàddu ku ngeen ko jox baax na waaye bu ngeen cëralee def ngeen li leen war jëmma ñii lay imam malik yal na nga yegg niw yoon waaye yàlla na yàlla def jàmm ci yoof yal na yàlla def jàmm ci yoof yal na yàlla def jàmm ci yoof wax naa leen ne seeni dalal fuuta dalal waalo dalal sin, dalal salu, dalal kajor, dalal nyep, dalal nyep, bu ñu ëlbatakoo nag mu melni nga waccu ba nopi diko lekat yeen ay ndanan ngeen ay garmi ngeen ay gor ngeen ku xam ak lébu xam dara jaru dara jaru lu leen nara xajali leen ak ku leen ko jox seen ak ko gën seen ko gën seen ak rafetal ko gën yàlla na nu yàlla may dégg sëñ Moussa jërëjëf Mouhamed eskey comité de gestion école jàmmalaay ànd ak Assane Diène dafa mel ni dem na ak Aji waaye na Aji Mbeg Aji Mbeg dafa dem mooy sans promotionnaire de Aji Mbeg dinaa jël pay man ma jël quatrième ma daw ba kër ga rek agsi papa ne ma lan la ma ne ko maa jël quatrième mu ne ma maxool xool ñëw di ko mun rek mu ne ma téngu ko mbëkk dama ki jël nu mu def ba ñibbi <laughs> ma ne ke mu ne ma ku jël ma nekk ko aji mbeng mu ne ma ba compo bii di ñëw ba aji mbeng raw la compo ba ñëwaat aji mbeng jëlaat pee ma yor ma saak su ma doxee ba nii di waaj a yegg rek ëlbatikuwaat naa cey fu ma jëm góor gi <laughs> yal na nu yàlla may dégg papa laay cadeau yi nga xam ne promotion jàmmalaay 82 defoon nañ ko daaw defaat ko ren yàlla ko defaat déwén bi si jëkk nag monsieur Naaru Mbeng monsieur Naaru Mbeng yow lañ ko jagleel imaam imaam yaa koy jox imaam Ilimaan ñaa moo ko koy jox monsieur Naaru Mbeng waa promotion bi nee na jërëjëf waa promotion bi nee jërëjëf yaag ñoom démb yaag ñoom tey yàlla na doon yàgg ñoom suba incha si turu promotion bi yëpp kado boobule imaam ilimaan di jox waa promotion bi ñoo la ko jox jërëjëf monsieur Naar yal na la yàlla bàyyi ak sago te mu ànd ak wér ah madame waaye madame dafa ànd ak jigéen ña muy Binta Seen mu ne sama yaay la fu mu teew ma teew yal na la yàlla fay bokk nga si taaru bés bi madame Mbeng kan moo koy jox imaam imaam bismillah abdou salaam Mbengue comité de gestion bu Diamalaye à titre posthume daaw joxoon nañ ko ko doomam Maada Diagne moo ko jëloon ren ji waa promotion bi tamit a décoré kii nga xamante ne moo di monsieur Saliou Diagne monsieur Diagne ku baaxoon yal na ko yàlla yërëm yal na ko yàlla jéggal yal na àllaaxiram di noflaayam maa de bismillah Mouhamed nga joxeel ñu kàddu mberi laay bismillah jege sil monsieur Diop maam gi moom i tamit foog naa ne teewoon daaw ren yàlla weddi moom itamit yàlla na yàlla suñu borom yërëm ko te jéggal ko di Amém. laa jóge ci limam ñiir waaw dama xala tawat moo tax. waaw léegi sax yow di wax ne gis yooyu yëpp war a jàll. ku ko jël ku koy jël war a jàll Mbengue jege ñu jox Tandey Binte Ndoye madame Ndiaye madame Mbengue bisimilah jege nga jox ko.

teew aajo boo fi indi yàlla na ko yàlla faj jàngoro boo fi indi yàlla na ko yàlla faj ñu ngi jërëjëfal ñëpp mun Omar waaw Omar yow da jege si man su ma waxee ba noppi yow boo soo paree nga tàllal ba fa nga daaneele rek ñu jeexal waaye la may wax mooy képp ku fi indi aajo yàlla na ko yàlla faj képp ku fi indi aajo na ko yàlla faj ku fi indi jàngoro yàlla na ko suñu borom saafara ni ñu teewee nii toog nii xaar nii yàlla na ko yàlla defal fajug aajo yàlla na nu ko yàlla defal boole si ñu war a ommatu déwén ñëwaat toog fii kenn bañ a socc sax promotion bi jërë ngeen jëf man de fasante naa ak yéen kóllëre fasante naa ak yéen kóllëre teew naa daaw yàlla boo ma ma ma teew ren fu ngeen koy defe fu ma nekk wallaahi bàyyi naa leen xel. bàyyi naa leen xel de incha allah yal na nu yàlla defal jàmm fa may teere Omar mooy li sa waay wax si kañaan ma doole si benn xis mooy waaj a demoon ne day visiter ji lan moo xew barzaq malaaka mi yóbbu ko indi ko ne ko mu gis benn mbalko mbalka ba ñu nga ko tëj wutal ko ay gardien gardien yaa ngi ko wër mu ñëw ne mbalka mi waaw lu ci ne ñu nekk asiatique yee ci ne ah européen yi dañu solidaire bëgg jàppalante boo leen tëjul garde leen danañu rëcc ba jeex mu avancé mbalkam yi ñu si ne ñu nekk kanaar yee si ne ak chinois yi ñoom i dañu solidaire bëggante boo leen tëjul di leen garde dinañu jàppalante ba rëccante ba jeex mu ne waa baax na avancé mbalkam moo xam ne kenn tëju ko kenn gardew ko mu nga ne wëlëng mu ne waa mbalkam yi ñu si ne mu ne ko africain yee fan ne jaru la tëj jaru ku nar a rëcc sa morom ne laan ñu réet nga toog على صفي سيريس أجود من ساقا نسك سبلا أيوة أنقالا كنت ساقا يقول أنقالا كنت ساقا يقول أنقالا كنت ساقا يقول أنقالا كنت ساقا يقول أنقالا كنت ساقا يقول أنقالا كنت ساقا يقول أنقالا كنت ساقا يقول أنقالا أنا أبا ما قال

mam boko way buñu joxe mam boko mo way jegim sirat bayal yo yege ngana te kawsar ay yonan zon kawsar mam bulane ngana galo nyo ayo galo nyo ayo galo nyo ayo galo nyo gondala la kon ba baliyana ala galo ko koy sika ono sangan chiwa bono sangan chiwa ay bono sangan chiwa ay bono ay chiwa ay bono sangan chiwa zar bono sangan chiwa ko ko def gurgi dem bala bono sangan chiwa Bo bo bo no no way na boole yal na jubóo Habib na jubóo Laayeen na jubóo Maalif na jubóo Laayeen na jubóo Tijaan na jubóo Habib na jubóo Laayeen na jubóo Sexne na jubóo Ngalawaay buñ xuloo ñuy gisee tey waxtaan nu ni ne noo fi ne nu ni ne noo fi ne ñu ni ne leen joxante leen joxante leen joxante leen joxante leen joxante leen joxante leen joxante leen joxante leen joxante leen joxante leen loxo yi ma faloo wala yi tàppe lool loxo yi ma faloo wala yi tàppe lool loxo yi ma faloo wala yi tàppe lool وكن بالله تجعل أصابها لسر عائز اليمين تابعا محمدا خير البرية الأنعام إنك قد دالوا كل فتى وعلي وسعدي منتقب الراكعين الساجدين المحتدين kàddu yi fi jub yëpp mais man ab question laay poser, boo xam ne imam Baye Mor laa parce que su ma ko posé kii dafay faral Marème mu tontoo ni mu ko neex mais imam yow xamoo mais moom li ma koy laaj mooy kañ ngeen nasoon bés bii nii pour. Euh, vraiment di gërëm suñu jigéen ñi bu a baax di leen wax mention spéciale ci taxawaay bi ak ité bi ñu def yëpp vraiment ku ci nek rek kep ko xamne ne na si loxam ci mbir mi ñing lay sante bu baax di ñaanal yalla suñu kilifa yi nga xamne ne tamit ñoo fi wàññeeku daaw neewon fi aussi ah ñun euh, di leen ñaanal yalla yalla yeesal seen yermande ci barke yonente bi sallallahu alaihi wasallam donc ci lool rek lañ doon wax euh, Mohamed mohammed ñing lay nuyu bu baax aussi vraiment di xaar aussi tamit ci yow li nga xamantene mo jëm ci walu école bi comme ni ko doon doxale euh, parce que mbir mi biñ koy sos aussi tamit dañ si jëmoon lépp loo xamante ne lépp lu ñu siy def rek ñu def ko si wàllu social donc ci loolu lañuy ñuy dox ba léegi nii donc ci loolu lañu bëggoon donc. Moussa Mbengue ñu ngi ziar aji euh, damay am benn seere muy indi si génération bi man yàlla daf ma nattoo ma nekk président communication école 2 ñu joxaan beneen beneen beneen euh, yenn muy union des communication yu yoof yàlla daf ma jiite ko. mais école de ñii dañ ñëw fekk ñuy ñab ñabal ñu ne ñu dinañ karale si ginnaaw ma teg ay caaxaan ñu teg ay dëgg ma xëy tiitalaay woowu ne ma didi di ñaata la ma ne ko ut xaaral bii may wax xaaral ñu oto ñu wàcce euh, karo ciment ak suuf karo nag duus si ginnaaw yëpp génération bi pour wala na ñoom li ñu waxoon ñu ngi si mooy dañuy def euh, seen seen mouvement jàppante seen biir mais lu ñu si am tam delloo ko si école bi ma di leen seedeel ñu ngi koy delloo sa école jërë jëf ak jàmm jërëjëf jërëjëf Mouhamed euh, sànq sax da nga yéex a ñëw waaye maire maire bi monsieur le maire aussi tamit jaar na fi donc wax na ne moom tamit ambition yi mu am aussi tamit mooy bu paree mu ngi liggéey foofu aussi tamit donc loolu nañ si déggoo ñun ñëpp incha allah lépp loo xam ne mën nañ ko si def rek bu soobee yàlla ñu def ko si ñu ngi ñaan imam di leen gërëm bu baax aussi tamit di seedeel imam ilman mi aussi moom mooy président bi nga xamante ne mooy promotion bii moom mooy président bi donc yaakaar naa ne ñun gërëm li ñuy gërëm lépp moom lañ ko war a gërëm ndax it am na jàngale bu muy def vraiment si groupe bi ndax it tijji groupe whatsapp boo xamante ne ak jamono bi ñu toll am ne kenn masul am masul am ku siy débordé lu ñu siy def rek mooy loo xam ne lu ñuy jàngale la loolu ak sant baax a baax di ko wax tamit aussi tamit ñi nga xam ne ñoom ñoo ñu yoroon damay wax ne ñun dañu amoon sens sens bi ñu amoon mooy que ne ñun ñii bi ñuy jàngal ñun ñu ñuy daje ñoom si mbedd yi mais léegi nii xale yi mooy képp koo xam ne ku lay jàngale sax yow daay yaay dem fekke jëkk mais ñun dañu daan laaxu pour dem pour bañ sax gisee moom mais léegi dafa dafa ëlbatiku kon donc loolu ñun ñëpp mën nañ ci jàngat muy jàngat boo xam ne war nañ si mën a yee ñi nga xam ne ñooy suñuy doom parce que suñuy doom actuellement ni ñoo nekk si école yi di fa jàng di def ay erreurs yoo xamante ne ñun daawuñu ko def sañuñ ko woon aussi tamit donc loolu bu ko jamono moo tax mu demee noonu donc ku si nekk rek mën na si bàyyi xel di nuyuwaat mouvement bu baax baax di wax ne képp koo ne nga sa loxo rek ngi lay ñaanal suñu borom li nga xamante ne aussi sami mo si nekk mooy que ne lii nii mooy jàmm ji rek parce que 40 ans ku ko toog ñu dajawaat ci lu ne bu ñu amuloon jàmm si ñëwaat di mën a lii yàlla nañ ko yàgg di daje yàlla nañ yàgg di defalante lu baax ci barke yonent bi sallallahu alayhi professeur mi toog Elimane Niang dama leen di xamal ne papa matarnya jangale na école 2 ba ñaari monsieur Niang ñoo fa amone ñang monsieur Bakar a roxee a Seynabou Seynabou ñang Seynabou Niang mu ma set monsieur Bakar di magu papam ak monsieur Niang Matar di wéyjur bu góor bu imam mi toog ñoo bokkoon di fa jàngale boobu yéen fekku leen fa parce que vers mille neuf cent mille la fa jóge at mi benn concours dem defi leneen moo tax fekku ko fa monsieur Niang moomu Niang Matar moo génn àdduna daaw ñoo ko jële fii ci morgo bi dem yóbbu ko ba Touba. ñoo àndoon ak moom mi suñu diggante la woon bon xam ngeen ci dara ma leen xamal ne papaam jàngale na école de fekk leen ko fa woon loolu rek laa doon mottali ok. waa jërëjëf Mbengue kenn mënu la fay yéene gu ëpp la rek <coughs> mais promotion bi macha allah def nañu lépp fàttali nañu tey sax ay tur yaay xëri jaañ ak bënn ndóoy kooku xamuñu ko sax waaye boole nañ ko ci kaamil bi sànq wakaam la dëkkoon la wax eh, mbengeen yaa ngi kaas fële ca bunt ba nee nañ heure bi <laughs> parce que ci koor la ñu nekk en tout cas ñuy sant bu baax bay beram ñu ngi du ma wax parce que da nga moom laa faral waaye eh, promotion bi tey suñu groupe bi tey bu demee ba am yàlla ak Marème lay kàññi bi waaw ah, yàlla ak Marème lay kànj kon ni mu ko yenoo ci ba mu am noonu la ko téye tamit ba tey donc moom ak ay moroomam fii ay jigéen kenn ku ne dañ la bëggoon citer nommément ci effort yu doy yu am solo yu ñuy def ci groupe bi waaye dañ xam ne ñoom ñépp benn lañu rek mais ñun ñu ngi leen di ñu ngi leen di jaajëfal ci sa kanam yow eh, Baye Mor ku jàng la parce que dafa gis na fi nga bëgg fi nga bëggoon waxee Moy da nga doon manifester sa jonge rek motax wa parce que ñew ba fi andi sa soxna macha di wax li ngay wax ci mom li ngay wax neex na la yalla na yalla fay la def nga ko daw yalla nang ko defat dewen ñu and ci ak mom ñu ngi jéggelu sat bu jenn waxtu yu jot na <laughs> ñu ngi jox salam mu o oh, seigne Moussa sax mu defal ñu ñaan ñu taggo inshallah ah pourtant Adja Marème <laughs> waxu ci dara waaw jërëjëf waa ñu ñu kii comme ci koor la ñu nekk jërëjëf Malick loolu dinañ ko dinañ ko topp incha allah ñu jox sëñ Moussa mu tëjal ñu jataay salaamaaleykum Assalamualaikum warahmatullahi taala wa ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen balu ax di leen bal ax fi ma tok ma ngi xalaat tay moy 17 ci Ramadan mu coïncider xaswatu Badr moy xare Badar te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi ñu ñibbisee wala bi ñu paree dafa xoon saxaaba yi rajaana minal jihadil asgar ilal jihadil eh al akbar mu nekk lu màgg loo xam ne parce que parce que bi mu leen waxee loolu saxaaba yu bari dañuy yéemu ne leen jóge jóge nañ si xeex bu xare bu ndaw bi jëm si xare bu mag bi ñu nekk loolu nan la mën a nekke mooy xeex ak sa bakken ñun nag ñu nekk si weeru koor dem bay waxtaane jàmm kon sant yàlla la te dañuy wax ne nit ki nga xamante ne mooy xeexa bakkenam yool boobu ñu doon eh, xare xare badar yool boobu da koy am kon loolu kon màgg na bu ko defee jàmm ji fi doon waxtaan daal yàlla na yàlla na law yàlla na yàlla guddal fan yi ñi war a wax it bu ñu waxee rek day baax parce que ñi war a wax bu ñu waxul rek jàmm du ciowli limuy bari yeb li nga naan jàmm ñi war wax bu waxe rek jamam mais ku warul wax bu waxe rek jam do loolu moy ciowli bu ko defé ñu and ñaan koor gi ñu wor dal yalla na ko yàlla nangu ñi tawat ci kër yalla na leen yàlla saafara wéyjur yi it yàlla leen fi ñu gudd fan lool seen li yit yalla tek ci loxo yalla man nako te dina def inshallah suñu uh, doomi nday bi yit ñu koy ñaanal yalla yàlla parce que bo xolé lepp ci bir yof la amul dem luñ jëli du kat yi ñi tagga yonent bi ñom njagay ci ñëpp fi lañ nek mom mit fi lañ nek ñëpp fi lañ nek suñu ñi ñu doon jangalet ñu ngi ni tok kon loolu sante yalla la kon bu ko defé dal ñu ñaan yalla dal yalla yalla yàlla bu ko defé ñu comme niko mag ñi doon defé rek bay Mor mu nga néna imam bi dina def conférence suba tongor midi à partir de midi ah ah waaw loolu kay moom waaw waaw waaw lo loolu loolu mooy nite yàlla loolu la bëgg koo gis sa moroomu jullit wala sa mbokku nit rek da nga war a am ouverture boobu kon sant yàlla yàlla yàlla dolli sutura <laughs> saay ndax mel ni bëggu leen jotaay bi jeex ay bu ko defee ñu def ñaan aywa nañ def fatiha aw ñu def fatiha ayatul kursi yi ixlaas falax yax naa si salaatul fatihi الله لا اله الا هو اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تخل به بيننا وبين معصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من أدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا